vous êtes jeune bachelier, étudiant ou professionnel. Vous êtes créatif, ingénieux et passionné par les domaines qui gouvernent le monde de la science et de la technologie. Profitez de l'offre de formation dans les filières telles que réseau et télécommunications, statistiques et informatique décisionnelle, gestion des entreprises et des administrations, gestion logistique et des transports. Cela vous est offert par Ziguinchor Institut Polytechnique, ZIP. Les inscriptions sont en cours et se poursuivent. Il est encore temps d'effectuer vos démarches pour une admission dans l'une de nos filières. Pour plus de renseignements, visitez notre site web www

ñu ngi leen nuyu di leen siyaar di am mbégte ak kontaante comme niñ ko defee chaque jour rek di leen toppal lamb ak li ci biir ñaa la fu nitu lamb nekk rek ñu fekk fa dégg suñu micro waxtaan ak moom moo waral tey ñëw fi nga xam te mooy mbaaw seet ki nga xam te bi mooy xalifa ñaa nekkoon président ikri tay singa ñu fasiyene waxtaan ak moom dañ koy bàyyi mu nuyu nuyu ñuy suivre su ko defee ñu dugg ci waxtaan bi mais lu jiitul loolu comme ni koy waxee rek ngeen wéy di abonné ba su notification bi xaar vidéo yi wàcc en temps réel ñu jolleen comme ni ngeen ko bëggee xalifa maa ngi lay nuyu di la siyaar ah salaamaaleykum wa rahmatulah Thierno. ñu leen di nuyu bu baax a baax. di leen ziar di leen baalu ak ci koor gi. di leen baalu ak di leen ñaanal yàlla bu baax di nuyu mbokk internet yëpp. di nuyu sénégalais yëpp ku ci nekk foo foo foo nekk ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay. di nuyu nag ah, askanu làmb yëpp euh, commencé ko ci autorités yi jëm ci. Euh, école yeeg écrit jëm si képp koo xam ne da ngay bëgg làmb rek ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay di la baal àq ci koor gi di la baalu àq bu baax a baax a baax. ma allah am na solo euh, boo ñu dee présenté Khalifa Niang mooy kan. waaw xalifa ah, euh, maa ngi dëkk pikin yaroo pikin mm-hmm. nekk nekkoon président écrit Taïsinga. Mm-hmm. donc yàlla def daaw ma ma démissionné. ci ci ci ci écrit boobu. Mhm. ci ci présidence parce que nekkatuma président bi. Mhm. mais ba mhm. écrit bi. ndax du du du mbirum làmb. waaw micro ñu boole dafa dafa dafa donc ci écrit ci écrit boobu laa nekkoon ci wàllu làmb nekk amateuru dans un premier temps. amateuru parce que dañoo judd ci fa mu ñu fekk fa ay ñuy Pape Diop mbër. Mm-hmm. ñu fekk leen ñuy bëree. Mm-hmm. ñu fekk fa suñu ay mag ñoom Mansour jóob mm-hmm. ñoom Ndiaga jóob ñu nekkoon di bëre ñu doon doon supporter ba ñi nga xamee ni noonu la ñoom baabooy ñëwee ak ñoom. ñoom euh, ñoom Tyson yëpp ñoom ñëpp vraiment ñu leen di suivre làmb daal nekk ñu ñu nekk ay ndaw yoo xam ne dañu nekk gox boo xam ne mhm. sport dafa développé muy mhm. football muy làmb mhm. ñu nekk ci ñaari wàll yëpp donc ci wàll sport football bi tamit dañ ciy yëngu parce que nekkoon nañ président ASC euh, ñi ngi nekk au niveau de AS Pikine comme euh, président commission finance donc nekk ci làmb tamit di yëngu bokk ci kuréel gu ñuy wax ARELS muy association des responsables des écoles fa nekk le mm -hmm. secrétaire général mm -hmm. donc loolu daal ci lañ nekk ci lamb mm-hmm. donc ay si euh, wàllu administration la ñuy liggéey mm-hmm. nañ nekk ci euh, benn béréb di fa yëngu mm-hmm. di économiste de formation mais lamb nekk loo xam ni suñu cosan la te ñun dañ ko bëgg en tant que administratif en tant que cadre dañ ko bëgg mais mm-hmm. te amuñu benn benn benn complexe pour wax ni dañoo bëgg làmb voilà on est très fier de de de mm-hmm. wax ni làmb suñu sport la te dañ ko bëgg chaque mm-hmm. dimanche moom la ñuy seetaan suñu seetaanul football làmb la ñuy seetaan li ma bëgg a ñëw mooy sa diggante ak euh, Tay Shinger relation bi fon la dooree bañ am kóolute ci yow pour nga nekk président écurie bi waaw relation Tay Shinger euh, xam nga Eumeu Sène dafa nekkoon bul faale bul faale la nekkoon boobu ñun ay amateur sport la ñu woon amateur làmb mm-hmm. mu nekkoon bul faale du fa yëngu ba yàlla def ñu dem ba ci biir moo am ay jafe-jafe bul faale mm-hmm. donc euh, bu mu amee ay jafe-jafe bul faale mm-hmm. ñu war a mettre en place écurie bi ñuy wax Tay Shinga donc magam di Papa Ngom ñëw gis ñu ñun ñi nga xam ni ñoo nekkoon au niveau de Pikine ñi nga xam ni ñoo nekkoon au niveau de fi mu dëkkoon muy daaru pour ñu encadrer ko donc si lañ ci demee ba ñi nga xam ne moom la ñuy wax suñu grand Sangoné Thiam ñu koy ñaanal yàlla. si yàlla xaare ko àjjana moom gaañu moo naka nekk président écurie Tay Shinger mhm. donc ñoom Tassirou Diallo. ak ñoom maam laay meng donc euh, mu nekk daal ay grand yoo xam ñoo ñu encadré woon boobu mm-hmm. man euh, secrétaire général laa fa woon xawma trésorier mm-hmm. donc loolu foofu laa commencé si Tay Shinger donc Tay Shinger si commencement ba laa fa nekk mm-hmm. jaar bi muy soog a door waaw ah, ak coow li ko toppoon ak problème yi mu amoon ak ak Tyson ñu ne nag nañ taxawal en mettre en place écurie bi pour jàppale Eumeu Sène jàppale bépp booy booy boo xam ne da nekk

di di leen wax ñu continuer jàpp rek mm-hmm. waaw te xam ni làmb moom noonu la day am ay o ak ay bas waaw bu nekkee boo nekkee ci période haut na nga xalaat période basse bi mm-hmm. bu nekkee ci période basse bi na nga xalaat ni boo redoubler d'effort rek suñu borom mën na la jàppale donc loolu daal ci laa nekk woon ci mm-hmm. ci tay su boobu comme ni mu jógee ci jafe-jafe bi uh-huh. jógee ci coow li li ko uh-huh. toppoon ci bul faale ngeen choisir daal di bëgg a créer li nga xam mooy Tay Shinger nga bi parce que ne ànd xale pour waa non làmb làmb moom xam nga làmb mhm. dafa metti parce que làmb dafa bëri coono mhm. te amul dara lu nit di séntu mhm. yàlla moo lay nattu rek nga dugg ci te li la ci duggal génnewu la ci parce que boo ci xësee ba dugg ba commencé am ñeewantal ak mbër yi mhm. ak ñeewantal ak xale yi mhm. donc ñu am yaakaar ci yow nga am foo leen mën a féete mhm. donc c'est pas évident nga mën a xëy xëy rek bëgg ci génn donc il va falloir que nga nga nga nga patient nga mën a dékku parce que milieu la boo xam ni tamit façon nit bu nekk moo ci nekk waaw am na ñoo xam ni ils xam nañ euh, am na niveau. Mm. am ñoo xam ni ku ci nekk rek danga nga koy jàpp si niveau bi nga xam ni moom moom la toll. parce que nit soo bëggee ànd ak moom dangay wàcc ba toll ak moom pour mën a ànd ak moom. Mm-hmm. je crois que si noonu la ñu àndee noog àndee noog euh, milieu làmb yëpp. Mm-hmm. nga xam ni di nga ci trouver gis intellectuel di nga ci gis koo xam ni. waaw euh, jàngul gi nga gis koo xam ne xëy na savoir vivre am ak niveau de connaissance su ah. addunaam soriwul mhm. mais lépp rek dafa bokk ci aaru lamb mhm. donc day tax day tax nga gën a xam aduna mhm. xam ne Sénégal tamit euh, nit yooyu ñoo ko composé nekkul ne ñëpp dañoo am benn niveau bi ñëpp dañoo jàng wala ñëpp dañoo am niveau de vie boo xam ne moo leen di permettre ñu mën a exprimer wu comme ni ko nit ñi di souhaiter mais l'un dans l'autre rek ñun ci loolu lañ nekkoon ñu juddoo nag ci gox boo xam ni waa loolu dañ koy dañ ko dañu ci tàggat. donc ñu yàgg nekk ci milieu sport bi. Mhm. ci wàllu football bi ak ci wàll làmb bi ba tax na loolu nekkul woon contrainte bu rëy ci ñun. Mhm. ndax ci doole nag ñu doon ay agent de développement de métier. Mhm. parce que euh, ingénieur de euh, planification lañ. génne ENEA donc euh, yàlla may nañu ñu. ñu ñu xam nan la ñuy nekkee ak ay nit nan la ñuy jëflantee ak ay nit ak wàllu façon nit bu mu mën a doon donc loolu bokk na ci li nga xam ne moo ñu dimbali ba nga xam ne mën nañu euh, euh, liggéey ak façon façon nit bu nekk mhm. Mhm. ndax am nga satisfaction bi nga xam te bii euh, bi nga yore écrit bi ba mhm. tey fi mu toll fii nii waaw satisfaction moom wax dëgg yàlla Euh, am nañ ko ci euh, satisfaction bu kawee suñ jot parce que ñu ciy dugg mm-hmm. dañu ñu doon euh, dañ ci lu ne lañ ci doon dégg mm-hmm. waroo lañ dugg ci yii la milieu làmb dafa xaw a dafa doy waar mm-hmm. dafa xaw a sauvage lañ ko doon wax ak yu ne yu ne waaw ñun ñun ñun ñu gëm ni sport la et puis ñun ñu gëm ni su suñu ay naw lañ lañ ciy nekkal c'est vrai biñ ciy dugg ak ak taay nga ma seen nekkoon ne ci ay jafe-jafe donc yàlla dimbali ñu ñu am ay combat ñu koy préparer dans la sérénité di ko préparer dans la collégialité ba yàlla dimbali ñu ñu am ndam ci Lac de Guiers 2 am ndam ci Balla Gaye 2 ah yàlla ñëwaat ak ay mbiram Modou Lo daan ñu premier daan bi mu metti ñu retroussé waat suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu manche dem entraîné ji waat nekkaat ci ci waar bi di conscientiser nit ñi di leen wax ni sport la ba yàlla def ñuy dem di am ay ndam di am ay ndam ba indi li nga xam ne mooy roi des arènes te xëy na roi des arènes mooy mm. mu làmb ji donc boo ci demee ba nekk sa poulain nekk roi des arènes mm-hmm. je crois que li ñu ci doon wut am nga ko mm-hmm. et point de vie organisation tamit xëy na bi ñuy ñëw am na situation yoo xam ne fa lañ nekkoon fa lañ fekkoon suñu mm-hmm. suñu suñu poulain mu nekk fa et yàlla def na jóge nañ ci situation bi nekk ci ay situation yoo xam ne jàpp mm. nañ ne ah situation yooyu de moo gën donc yooyu ànd bi mm. euh, satisfaction wu total lañ ci lañ ci lañ ci lañ ci lañ ci lañ ciy génne <laughs> uh-huh. mm. mu jógee ci ay jafe-jafe nga ker écurie nga ber écurie ànd ak moom di liggéey dem ba dégg daal nekk roi des arènes mm-hmm. maanaam loolu après bi nga nekkee bi nga liggéey xale yi ba nekk roi des arènes guddi gi mu ko jëlee mm-hmm. en tant que président écurie bi naka la ko dundee waaw mu doon loo xam ni da euh, dañ ci am mbégte sant ci yàlla bu baax parce que nekkoon na loo xam ni mbër mi ci boppam moom lu mu gëmoon la lu mu gëmoon la doon ko dëkkal suñu suñu nopp yi waaw lu mu gëmoon la xëy na lu ko suñ borom wanoon la wala lu mu amoon yàqin la mm-hmm. mais daal lu mu gëmoon la ñun tamit ci ngëm-ngëm boobu ñu ko ciy jàppale ci wàll bu mu mën a doon ñu ko ciy jàppale di ko ci conseiller di ko ci kii ba yàlla defal mm-hmm. defal loolu mu doon satisfaction bu mag nag mm-hmm. satisfaction ci ci ci Pikine parce que instant boobu noonu pikin soxla woon na roi des arènes te moom yàggoon na ko dig waa Pikine que ni dinaa leen indi roi des arènes donc dañ ci am satisfaction vraiment bi ñu jëlee roi des arènes bi ku nekk da nga bëggoon mu mu yem mu foofu quoi parce que doyaloon nga parce que loolu daal nga doon xaar mhm. mais voilà mi ngi noonu il fallait vraiment continuer jéem a xool yan échéance moo ci moo ci topp ak yooyu parce que sport tamit loolu la quoi. Uh-huh. mais gars yi dox tuuti tegaate ay quelques combats ñu dégg ñu ne Khalifa mm. bi. waaw li waral démission bi démission bi c'est affaire personnelle la. Mm-hmm. ci ci man. ma dem ba mënatuma ma ma ma démissionné parce que Eumeu Sène ci boppam mi nga xam ni moom mooy tête de file bi làmb boolewuñu làmb boolewuñu dans le sens que dafa judd sama kanam mhm. yaroo sama kanam man ak magam ñoo doon ànd mhm. magam boo xam ni moom toppul ci moom toppaanul ci moom ñoo doon ànd mhm. euh, dëkkandoo moo ñu boole mbokk moo ñu boole donc ndax dëkkandoo bu yàgg mbokk la donc aw ma ak moom benn problème aw ak moom benn xarma yàlla mhm. daf di ne nit eh, bu ngeen di ànd da ngeen di ànd ci dëgg mhm. di ànd ci ànd nawle mhm. te ñun ay nitu principe lañ te bu ñu demee ba xëy na ànd bi bëgg yàq mbokk bi on préfère ñu arrêté ànd bi continuer mbokk yi parce que xamante woon nañ te làmb amul xamante woon nañ te leneen amul donc du lamb moo ñu moo moo ñuy donc lolu rek motax man ma démissionné té démission bi ci ci vraiment ci man la jugee man ma man ma mënatul won et té nekkul loo xam ni loo xam peut-être dañ koy exposé ci ci mbéd mi c'est convenance personnelle la man ma ma ma démissionné. yi nga xamante da fay décorer sa cuisine ba mu né boy ak li nga xamante modi sa salle de bain and ak décoration bu amul fenn ay karo yoo xamante ni boo sa façade kër da ngay melni ni ku nekk ci panaa établissement khadim rasoul seeni karo du jël ben yon ndox ba nopi ay qualité yu bax jaay te karo du Yaku. waaw waaw kon nak yow mi bëgg ay karo yu dawal gaaw wa établissement khadim rasoul ña nga nekk ca Parcelles Assainies ca boru marché police ba numéro téléphone 33 820 39 95 wala 77 720 32 44 établissement khadim rasoul nak dañuy ubi du lundi au dimanche à demain kon nag boo bëggee ay karo yu baax dawal gaaw seeti waa établissement Xaadimu Rasuul ña nga nekk foofu ca Parcelles Assainies ca booru marché police établissement Xaadimu Rasuul